السميع العليم من إبليس الشيطان الرجيم اللهم إني أسألك خير ما في خير ما في هذا اليوم وخير ما بعد أعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مكجلي julli di mbokk ginnaaw ba nu sante yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu di leen nuyu nuyoo bi gën a tedd ci nuyoo islaam muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu doon barkeelu ci laaya jooju nga xam ne Muusa alayhi salaatu wassalaam ba mu dotamee mënta wax ak firawna dem ci sunu boroom ne ko ne sunu boroom sama rakk ji di na defal ko làmmiñ wu leer ngir mu mën a wax ak Firawna laay jooju lañu barkeeloo ngir sunu boroom mën a fecc sunuy sunu làmmiñ ba mën a doon wax ju jub ñu ñëw ci seen jaar jaar waxtaanu jaar jaari mag ñi mag ñi nga xam ne ñoo àndoon nag Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim ñooy saxaaba yi ñoom la Sëriñ Tuubaa doon wax ne saxaaba yi seen bàyyi ci diine bu ngeen di roy roy leen saxaaba yi mag ñooñu am ci juróom-ñaar ñoo xam ne Sëriñ tubaa waxoon na ne dëkkale gi am na juróom-ñaar ñu fa tëdd ñoo xam ne bu saxaab bu leen saxaab bu ñu yewwaatoon tey saxaaba yi duñ leen jam ci dara neeñ comme te jiital mooy way juram Mamour Anta Sali mag ñi nga xam ne ñoo takkoon seen laxasaay ba mu dëgër ànd ak Serigne Touba Cheikhul Khadim ñooñee kenn ci ñoom lañu bëgg a waxtaane muy Serigne Mouhamadul Amin ibnu Moustapha ñu di ko wax Serigne Baara Gaye xarifaal jëmmooy serigne bara gay xarifal jamoy serigne touba cheikhul khadim nak wala yonent bi alayhi salaatu wassalam <clears throat> bala ko xam faw ñu jitt bala ko xam faw ñu top serigne touba xam ko bu baax te serigne touba cheikhul khadim mom ngir ñu xam ko mak ñi ñoo ñu xamal serigne touba ñoo ñu xamal serigne touba mooy atbaaw Cheikhul Xadim muy muriti taalibe yu mag yi ñu ko toppoon ñooñee nag moo tax sëñ Tuubaa ne wali qaada ahbaaban biim ushidu nuska sunu boroom jox na ma ay soppe yoo xam ne ñooy feeñal sama liggéey ndax mbër mu nekk ci protocolam ci ngay xamé moy kan ñami andal mbeur mu nek ci protocolam ngay xamé moy kan muy entourage ba ko dar serigne touba mak ñi ko daron ci ngay xamé dayom ak moy kan bokku na ci mag ñoñi muhammadul amin ibnu mustafa ñu di ko wax serigne bare gay kharifal jëm moy kooku la war a waxtaane tey mu bokk ci askanu jëm mooy mooy cosaanam way juróom góor mooy Moustapha ñu di ko wax mu taf siré mooy doomu Madu Seeni doomi Baara Anta Mbaj Baara Anta Mbaj moo meññi askanu jëm mooy askanu jëmmooy nag di askan wu yàgg a ràññiku ci diine ak xam-xam ak sàmm seen ngor muy ñett yu am solo askan wu ci diine askan wu ràññiku la ci xam-xam askan wu sàmm seen ngor la kon képp ku bokk ci askan wi rekk ñett yi war nga ko sàmmal askan wi muy ngor ak xam-xam ak diine askan wu mër sa jaar ci ceddo la woy juróomu jigéen moo tax ngor lu am solo la boo xoolee Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke Gaïndé Fatma neñ daana ko wax dañu diw de dafa jaay ngorom mu ne amu ko ngor ni mu neexee kenn du ko am di ko jaay buñ demee ci way juróomu jigéen mooy soxna xari Fall askanoo ngiig di askan wu ñu xamee diine ak xam-xam ak sàmm ngor nga gis ne ñaari càllal yi ko meññi moom Serigne Bara Khary Fall muy jëmmooy ak askanu ngiig Fall askan wu ci nekk ci ñoom ñaar lii rek lañ ko xamee muy diine ak xam-xam ak sàmm seen ngor bu ñu xoolee njàngum sëriñ Baara Xarifal ab njàngam ginnaaw bi mu mokkale alquran ba tàmbali njàngum xam-xam xam-xamum diine ba géeju ci sori ci ci la laxas dem Mbàkke Kajoor ngir mottali alliwam ndax booba Mbàkke Kajoor bokk na ci bërëb yi gën a ràññiku ci njàngum diine loolu ko tax a laxas ca jamono jooja dem Mbàkke Kajoor ngir mottali alliwam ba mu demee fala sax di jàng ci daara yi Mamour Anta Sali ji ba Mamour Anta Sali wàccub liggéey ba Sëriñ Tuubaa woote wooteem bu siiw boobee muy rab rabbi asxaabaka bilhimmati wala turabbihim bi darsi faqat xam ngeen ne Cheikh Ahmadou Bamba bi fi Maam Mor Anta Sali toog na at ak genn wàll at ak genn wàll goo xam ne ca ndigalul Maam Mor rek la nekk ca daara ja rek yëngalul dara di jàngale comme nam daan jàngale woto woy juróom waaye bi at mi mate ak genn wàll la jot ci ndi ndigal ci borom bi subhaanahu wa taala jaare ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne ko léegi nag yaral saw nit ci himma bu leen yarati ci jàng kese himma mooy jàngale ak yare ci la ne nag ku bëgg a dox sunu doxin ñëwal ànd ak nun waaye ku fi jàng képp indi woon yeewi nañ la bis naka tey mbooloo ma xaaj ñi dem ña fa jàng dong indi woon des toog ña toogoon nag ànd ak sëriñ Touba jox ko seen bopp def mu bàyyi amuy jaayante bokk na ci jëmm ju tedd ji ñuy waxtaanee muy sëñ Bara bokk na ca maam Thierno Ibrahim bokk na ca sëñ Mayasin Dieng bokk na ca ñooñee sëñ aadama Guèye bal sax dañ naan mu njëkk a jox boppam Seexul Xaddim ala kulli xaali sëñ Baara Xarifaal li ñu bëgg a wax foofu rek mooy bokk na ci njëkk a jaayanteeg sëriñ Touba woote bi Mbàkke Kajoor la ko fekk. ak ñaari àndandoom yooyu nga xam ne mboolem li ëpp lim jàng ci xam-xam ñoom la ko àndal muy maam Thierno Ibrahim Ndaamal Daaru Muxti ak sëriñ ma Mayacine Dieng. lay dëggal loolu mooy benn bis ku tedd ki yabal na leen ci xaadima jaxate kale ñoom ñett ngir. fànni xam-xam yu ñu fa doon jàngi kon loolu day dëggal ne seenub ànd ci xam-xam lu yàgg la woon ñoom ñett ñooñu sëriñ baara xarifaal gay jëmmooy ku sëriñ bi doyloo woon la ci mbiri biiram ku sëriñ Tuubaa doyloo woon la ci mbiri biiram la ko waral mooy maandu ga ndax ku tedd ki bokk na ci aadam fu mu mësu tudde baatub sëñ Bara Xari Fall rek lam cey teg mooy baara mu maandu mi maandu la cee toftal ku taqoon ak ku tedd ki la fu sëñ Tuubaa ma sa nekk rek ma nga ak moom ba ni ku tedd ki sañce Tuubaa taqali taqaliwu toog taqaliwu ko ak ku tedd ki ba ni mu sañce Tuubaa fu ñu toll ñooy taqoo li ëpp ci liggéeyam moom sëriñ baara xarifaal liggéey bi mu xitmaam bi mu doon liggéeyal sëriñ mooy bindal ko alquran di ko bindal alquran ak téere xam-xam yi ànd ak ñooñu ko ci doon jàppale muy maam Thierno Ibrahim ak sëñ sin jëng ndax ku ne xam ne sëñ Touba ku itte woon la fànni xam-xam yi fu mu mas a dégg ab téere dana dem àbb ko binduloo leen ko ñoom ñett bokk na ci téereb arut bi ko bi bi sëriñ Abdul Ahad di nettali naar bi bi ko sëñ Tuba abbee téere bi mu bañ sëñ bi abbu ko ko ngir sotti ko ñoom ñett ñoo bindoon téereb arut boobu sëñ Baara Xarifaal gay jëm jamono yi sëriñ Tuba dina ci géej gi tubaab bi di ko yóbbu Gabon ci tukki bi booba mi ngi des toog ne ci digal li ko sëñ tubaa digaloon sas wi ko sëñ tubaa sasoon mës mës mës mësta des ginnaaw mësta booy diirub li ko tedd ki ne ci géej gi mi ngi ci ndigalul sëriñ tubaa bi sëñ tubaa dellusee jóge ci géej gi ñëw la delluwaat ca moom toogaat ca palaasam daan ko liggéey liggéey ba mu ko daan liggéeyal ba ni ku tedd ki toxoo dem Mauritanie tubaab bi jële ko fi ci lu coobareem bëggoon ko yóbbu Madagascar Cheikh Sidiya dal daldi koy laaj ne li ngeen di njort ci moom nekkul ci moom moom dara ñoru ko lut boromam bàyyee leen ma ko ma garde ko tubaab bi nangu ko bàyyeeg Cheikh Sidi bi ku tedd ki nekkee Mauritanie bokk na euh, sëñ Bara Khary Fall bokk ne ci ñi gàddaay mag ñi gàddaay fekk Serigne Touba Mauritanie te ku ne xam ne ne Mauritanie jamono jooju metti na lool ndax Sëriñ Tuubaa daana dajale mag ñi tibb bu bari ci loxoy pepp def te doon ju xorom kenn ku nekk mu jox la nga nga jëm ko daldi naan sata kubéeru satal ak ndox ba waxtoo delsi ci waxtoo delsi ci nga xam ne noonu la leen doon tarbiya seex si àggoon nañ ci foo xam ne dangay gis koo xam ne ab xiif sonal na ko ba mu ne tey ku ma reggal ku ma reggal ma faj sa ajo ñu ne ko ah fii <laughs> fii regga fi gën a jafe ak wilaaya de ak regga fi gën a jafe ak wilaaya bari na gàñ ñi mag ñoo xam ne fa lañ jóge ñibbusi kon suñ Bara Xari bokk na ca ña fa nekk ak Serigne tubaa ba ni sëñ Touba ñibbusee mësta tekki laxasaayam Cheikh Mouloum Diop Dagana nee na bi nga xamee ne ñëw na Mauritanie ardul bayaadin fekk fa Serigne Touba Cheikhul Khadim sëñ Touba sëñ Baara Xarifaan la ko boolee loon ngir mu toppal ko alliwam alquraanam nee na sëñ Baara Xarifaal jox ko ab kaamil ak alliw muy tari di bind di tari di bind bana alquraan ji àgge mu door a dikk ci Sëriñ Tuubaa ne ko alquraanam wér na wér na lool ku tedd ki door koo yebal ci Sëriñ Moor Mbàkke Ture mu tàmbalee jàng xam-xam xam ni kon xoola sëñ Bara Xirifal fi mu féete woon sëñ Tuubaa muy ci wàllu alquraan li gënal Sëriñ Tuubaa liggéey bi gën ci liggéey yi gënal Sëriñ Tuubaa nga xam ne lu mu am ci alquraan la ko amee moom la sëñ Baara Xarifal foofu la féete woon Sëriñ Tuubaa sëñ Baara Xarifal nekk ak Sëriñ Tuubaa Mauritanie ba ni tubaab bi indiwaate Sëriñ Tuubaa Jolof muy Mbàkke Bari Jolof mu nekk fa moom comme ni ko Cheikh Mawlum Diop Dagana waxe nee na daana jàng moom téere xam-xamam ci jolof ci ñett ñi muy sëriñ Mouhamadul Amine Gaye ak sëriñ Baara Faati Mbodj ak sëriñ Baara Xarifal ñett ñi ñoo ko daan jàngal bi mu nekkee jolof sëñ Tuubaa daana wax ne sama ñetti baara yi di leen seereel ak mbaax sama ñetti baara yi muy ñetti baara yooyu sëñ Baara Faati Mbodj ak sëñ Baara Xarifal ak sëñ Mouhamadul Amine Gaye jëmmooy ak Serigne Mouhamadul Amine gay Firdawsi boobu ba ni ku tedd ki tuxoo jolof jëm njaareem raamu masiri ilaa jurbel law aayanu fi sayri ma mu ni ciy tubaab bi boo xamoon li nekk ci jóge jolof jëm njaareem ndax boobu tubaab bi jàpp na ne li tax mu indi ko jolof mooy boobu ay kaw kaw lañ te jàpp na ne dañ comme que dañuy bay ci nawet bi ak foofa ni mettee duñ tala ak ngëmloo ci moom ba mu demee ba mu wóoru ko ne ku mbooloo maa ngi ñëw mbooloo mu dul jeex a ngi ñëw jolof ci la ko tubaab bi bëgg soppee ne teemu ko yóbbu njaareem jurbel ndax boobu ay fonctionnaire lañ te ay fonctionnaire bu ñu xëyee liggéey ñoom duñ tala ak ngëmloo kenn loolu tax ñu yóbbu ko jurbel mu ne cëy bu ñu xamoon li ne ci dem ak jurbel gi kon loolu lépp muy Mbàkke Bari Jolof ak ba nii sëñ bi jëme njaareem sëñ Baara Xarifaal mu ngi nekk ak sëriñ Touba Cheikhul Khadim bi nga xamee ne kon Serigne Baara Xarifaal ak Serigne Touba ci njaareem maanaam bi ku tedd ki nekkee njaareem ana naka la nekkee woon ak moom bi sëñ Tuubaa ñëwee njaareem nag lu ko digal mu mu mu wut maanaam ci lu ko digal ngir mu gori ab àll ci lu ko digal ni ko demal ci soow bi ci garab yu sëq ya nga xam ne dafa ami njañ foofu laa la dël dikku fa lam ko dig sëñ Bara Xari topp àll bi ngir wër garab yooyu ko sëñ Tuubaa wax bi muy wër di wër ba agsi tund sañu xur woowu fa la fekk màndarga yi ko ku tedd ki waxoon muy garab yooyu mu gor ko ngir jaamu fa yàlla ak liggéey fa bi nga xamee ne gor na ko nekk fa ab dig ab diir bu gàtt ku tedd ki wooluwaat ko nekk fa ab diir bu gàtt mbooloo mu dul jeex fekk ko fa di jaayanteeg moom ba mujj mu mel ne tund sañaxoor ak njaareem taalibe yi di ko jaabante mbooloo mu dul jeex di ko jaabante mu yónnee addi di ko yónni ci ku tedd ki di ko di leen yónni ci ku tedd ki ñuy dem ak ñëw ba mujj mbooloo mi bari lool ku tedd ki woolu ko njaarim bu mu dikkee mu sancloo ko kër ci njaarim bi nga xamee ne sanc na kër ga ba pare bàyyee ko rakkam ju ñuy wax Serigne Moustapha Gueye kër googee sëñ Tuubaa ci këram la ko boole woon ci këram la ko mboolem li muy digle ci këram loolu la fay digle la muy tere ci këram la fay tere ba ci mujjug dund ku tedd ki sëñ Tuubaa ci la ko yebale Touba ne ko demal tuuba toog fa bu mu dikkee Touba ba ni ku tedd ki wuy jee boroomam mi ngi Touba bi sëñ Tuubaa wuy boroomam bokk na ci ñi ko gàttandu wax dañ naan sëñ Baara Xari Faal ak sëriñ mu Lamine Gueye si ñoom ñaari ñoo jàppoo ku tedd ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim dugal ko jébbal ko boromam ci pax mi loolu di liggéey bu rëy mu mel ne ay jikkoom ay axlaaqul faadila jikkoy sëñ Baara Xari Fall akuk taalibeem taalibeeg sëñ Baara Xari buñu bëggé wax ci ak talibé sax ak talibé ci moy lan man ni ban importance nyurun señ Tuubaa lan lañ jox manam manam nuñu gisé won ak talibé manam ban way lañ ko joxon señ Mor Talla Fall mu fal Cheikh ibrahim Fall ben bis dafa tok di jang jalibatul marahib diko jang ba deñum tang wëru ci wenn di jàng ba dëndam tàgg fekk sàkket wi ca biir néeg ba sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa nga ca biir daal di fëgg sàkket wi ne ko kum doon mu ne ko mën a mu ne ko mën a day yokkub laaj yow ak kan mu ne ko mën a mortaale fàll mu ne ko sa borom nee na sa borom nee na nga wax ko loo bëgg mu defal la ko sëñ mortaale fàll nee na may xalaat rek lu ma war a wax borom bi subhaanahu wa taala mel ni sëñ Tuubaa damay déyaat naan ma nee ko ak taalibe nee ko ak taalibe ma ne ko ak taalibe waaye Serigne Mouhamadul Moustapha daa wax ne ak taalibe lislaam lislaam la maanaam lislaam ju sëkk moo di taalibe ku am lislaam ju sëkk am nga taalibe comme ak taalibe am nga lislaam ju mat sëkk ñoom ñaar dañoo taraaduf benn mënta dem ba sa morom ñu bari nag dañoo foog ne lislaam eh, suñ borom jaamu gi ñu koy jaamu lislaam ci boppam maanaam teggin yi ci biir moo di taalibe déedéet ak taalibe mooy lislaam ju mat sëkk noonu la ko Cheikh Mamadou Moussa fiire lislaam nag dañ koy jàng dañ koy jàng waaye bokk na ci cat Eh, li nu dal nun murit mooy li sëñ Tuubaa waxoon ci seytaane daf ne seytaane de bëri na ma ak moom ba daan ko waaye daf maa xosi bëri na ma ak moom ba daan ko mu xosi ma ñu ne ko xosi gi mooy lan mbàkke mu ne mooy ñàkk jàngoog murit yi dëddu saddul muridi ani taallumi murit gi dëddu gi ñu dëddu am njàng ndaxte loolu boo ko xoolee murit yi koo ci wax fi mu toll ne ko xam-xam mun la sëñ Tuubaa daal nekkut ci téere sëñ Tuubaa nekkul ci téere lañ lay wax dëgg la sëñ Tuubaa nekkul ci téere waaye lim bëgg ci murid yi ci téere la ne ku xamul li ci téere yi mënoo mënoo def li sëñ Tuubaa bëgg kon ñoo xam ne ak taalibe faaw mu ànd akum njàng faaw mu ànd ak diine lislaam te diine lislaam dañ koy jàng mu ci téere yi mbindum sëriñ Tuubaa nag moo ne xamal bu ñu delloo ci mbindum Sëriñ Tuubaa moo ñuy xamal jikko ak taalibeek Sëriñ Bara Xari mooy ndénkaan li ko Sëriñ Tuubaa dénkoon ndénkaan li ko Sëriñ moo ñuy xamal taalibeek Sëriñ Bara Xari ak i jikkoom ndax ca tàmbalit ndénkaan ba Sëriñ Tuubaa dana ko ayyuhal axu naasixul adib wal muridu saadiqul labib e yow mbokk mi nga xamne ne ji laabire yow mbokk mi nga xamne yaay borom teggi ni yow mi nga xamne yaay mourid sadiq lol doyna seuk buñ ko faram faccé doyna seuk ñu xol teggi ni ko señ tubaa taggé ci jikko lu ko njëkk a yeen yéen bi borom di tàgg ci alquran wa innaka la ala xuluqin azim la ci jikko lu ko tegg ko ci baye ki mama ki ciosan ñu xool teggin yooyu ak lim ko ne murid saadiq yii melo moom doy na sëkk buñ ko forom fàcce mu mel ne ay teggin sëñ Tuubaa wax na ci lu am solo kon képp ku askanoo ci sëñ Baara Xarifaal war ngaa dégglu lan mooy ay teggin lan la sëñ Tuubaa jàppe ay teggin ba mu ba mu ne bërët daf ne tariqatul adabi rahmatu sagiri kal abi wal ummi wa tawxirul kabir yoonu teggin de moo yërëm ndaw ni ko ni ko baayam yërëme ak ni ko ndayam yërëme ak weg mag donte mag mi ab jaam la wa in kaana abdan abasiyan donte jaam la bu jóge Éthiopie bu xeebu da ko war a wormaal ngir jëmmi yàlla kon teggin yooyu bokk na ci nga xam ne Sëñ Tuubaa seedeel na ko Sëñ Bara Xari Fall kon képp ku bokk ci askanam war ngaa mbubboo war ngaa jéem a xam teggin yooyu nga tege ca ndax doonuñu luut ay royukaay ndax suñ tubaab dañ leen saxaaba yi seen bàyyi ci diine dañ leen roy saxaaba yi saxaaba yi roy yonent bi alayhi salaatu wasalaam lañ daan def ba niñ fi jógee ndaxte yoon sa sal mooy royukaay bi laqad kaana fiikum rasulillahi uswatun xasana yonent bi ci boppam mooy seen royukaay te al ulama warathatul anbiya borom xam-xam yi ñoo fi uutu yonent yi muy nit yàlla yi kon royukaay la nit mag ñi dara taxul ñu jàngale seenu dund lu dul roy ci ñoom roy ci ñoom képp a tax ñu jàngale seenu dund sëñ bi ne na def sa moroom mu mel ne sa bopp maanaam li nga bëggal sa bopp na ko bëggal sa moroom ngir jëmmi sunu borom waaye bul bëggal sa bopp tedd nga ak lu baax ba pare bëgg sa moroom torox loolu du jukkoy murit du jukkoy taalibe boo xam ne dañu ne ku askanoo ci sëñ Bara Xari Fall mu ne nanga xam ne diine mooy taarub aji xam maanaam na nga xam ne ay teggin mooy taarub bu aji xam muy boroom xam-xam ab taaram mooy ay teggin nit ki lu mu bari bari xam-xam te amu ci teggin dara xam-xam bu amul njariñ kii jàng xam-xam muy dongo bi bokk na ci ab taaram ab taaram mooy ay teggin ay teggin mooy takkaayu ko am xel képp ku am xel la nga war a def takkaay wër doon ay ceen wala ay caq ak nangam ak nang waaye la mu war a doon mooy ay teggin lewet mooy bopp jikko yi képp koo xam ne lewetut du amuti teggin dafa mel ne jigéen gu sañse ba jekk te tëkkut ci baat ba dara na muy ñàkke xorom noonu noonu noonu la mel te dana mujj doon koñ bañ ci mbindeef yi sunu borom tabaaraka wa taala da koy bañ moo tax mu ne kon nanga nga ànd ak nit ñi diirub jamono ni nga bëggee ñu ànd kook yow na nga yërëm mboolem mbindee fi suñu borom subhaanahu wa taala xoole leen bëtub ñeewant ak bëtub cofeel suñ baaraax rival jikko yi la woon moo tax suñ tubaa ne ko anta adibun yow ku nu yar nga ku ami teggin nga bokk na ci teggin yi gën a rafet yi sëñ tubaa tagge sëñ baara xarifaal mooy nga bañ a toog ak kola mag ci kaw lal ci lu lor lor ja mooy lu mel ne fa ngeen di lekke fa ngeen di sàkkoo xam-xam genn basang la mënu leen faa ñàkk bokk waaye bu dee bu dee wala wala dëkkuwaay ba muy néeg ba benn la la fa nekk mënu leen ko ñàkk bañ a bokk wala benn mat la yu mel noonu wax taxut ñuy wax waaye foofi toogee ak moom ci lu mënta ñàkk na nga toog moom ci dal ak wegeel ak ñong waaye bul toog di ko ak di tàllal say tànk ci xar kanamam loolu duy teggin foo toll da nga damm sab gis ci mag bu ne ko jàkk bul baril gestu ci lu aajo loolu lépp màndargay réer la alquran nee na qul lil muminina yaxuddu min absarihim waxal jullit ñu wàcc seeni gis ndax bët lépp lum gis muy lu bon day jël mbuubit ak mbalit di ko xëpp ci xol bu ko defee xol bi di ami tâche man na ko ci raana ala qulubihim ma kaanu yaksibun ya yi nga xam ne seen xol dafa muuru ba lëndëm ba tomb lu baax amatu ci man na mën na ko yóbbu foofa kon jikko yu tedd yooyu jikko teggin yooyu la sëñ la sëñ tuba adressé sëñ baara xarifal moo tax loolu war naa tax képp ku bokk ci askanu sëñ baara xarifal nga amu biar ami teggin sëñ tuba ne ko baara xarifal mu ne ko mbàkke mu ne ko ñemee jàmbaar doonut ki nga xam ne moo aar ak gawaram bisub dëbbante ba maanaam xare bi am mu aar ak njabootam ba réy ñu ci kenn nee na kooku du jàmbaar de mu ne kuy jàmbaar mu ne kuy jàmbaar mooy ki lem ay tànkam ba du ci dox ak mooy lu jëm ci mooy yàlla ki lem ay ndëggoom ki wàcc ab gisam ba du ci xool lu xaram ki lem ay tànkam ba du ci dox jëm fu xaram kookoy jàmbaar de mooy faris mooy batal laysa sujaahu alladi yaxmi fawaarisuhu yowma tacaani ida ma alxarbu tastaxilu lakina man gadda tarfan aw thana qadaman min an kon teggin yooyu la tàggewoon sëñ Baara Xari Fall mu ne ko bari Xari mu ne ko bàkke mu ne ko bokk na ci ay teggin mooy ñàkk saagaante ak fena ñàkk ndax loolu bokk na ci jikko yi gën a bon ni ki dóorante baaxut idi tasaabu bi naka fenalante saagante ñaara koy def muy saaga ngay saaga maa takkaatu bi ànd ak fenalante muy wax lu du dëgg ngay wax lu du dëgg min aqbaahil xisaar yi bokk ni jikko yi gën a bon kat tadaaburi ni ki dóorante mu ne ko baara xarifaal mu ne ko mbàkke mu ne ko bari teggin bari ree day rey ab xol kon na nga néewal say ree soo ko defee suñu borom dana la gërëm mune ko na nga jàppale waykat bi wax bokku na ci teggin waykat bi nee dama rombu ay nit ñu tok ma rombu len ñu may ŋàññi ma dégg sama tur ñu ne diw mor jaay ñu ma ma dégg sama tur mu wër ni man la jëw dégg na sama tur de waye dama deddu da na am keneen kuma bokkal tur ko mom wax lu ko ñok man ci ne ko lolu moy ay teggin waye am nit ñoo xone bu doon ñoma dañuy dañuy taxaw commencé teesanteeg moom man sama tur laa fi dégg naa nga moom déedéet suñ jubaa nee na wala qad amurru ala laimi yasubuni wa aifu thumma aqulu laa yaanii nii damaa romb way ŋàññi tooñkat yi ñu may ŋàññi mu wóor na man la ñuy waxal ma dëddu ne xëy na jubluwuñ ma ci keneen la ñuy waxal suñ jubaa ne ko baara xarifaal bokk na ci teggin su la mag bécc ngëlee bécc ngëlee su la toroxalee na yanu na nga yanu becc ngelam boo su fekkee dangaa toog ak moom mu rëccile na ko suturaal ngir jëmm yàlla wa in jafaaka faxtamil jafatahu wa in xafa fal tasturan xafatahu bul dañ di dog ngàtt foo toll ci moom naan ko maa ngi jéggulu maa ngi jéggulu nee na ko loolu mooy ay teggin mu ne ko baara xarifaal mu ne ko mbàkke mu ne ko yàgg koo àndal kum ci mën a doon su fekkee daa dégg ku ko mag muy sàkku ci jamono aajo ngir ku ko dimbali nit ki muy sàkku ku ko yónni ku mu yónni na jóg fajal ko aajoom joojee loolu mooy ay teggin nañ ci yar saw ñooñu mu ne ko bul wax kenn waxoo dëgg fen nga wala waxoo dëgg wala juum nga loolu du wax waxi waxi murit du waxi taalibe mu ne ko baara xëre ko wala taqul li ahadin kadabta aw xulta xeyra alxaqi aw axtata donta gone la nee na donta gone la bu bul ko wax yooyu su waxee loo xamul na nga ko dëggal mbaa nga maandu ca boo ko defee da nga nekk kuñ taral da nga nekk ku ku ami teggin kon melokaan yu tedd yooyu la sëñ Tuubaa Cheikhul Xaddim tàgge sëñ Baara Xarifal muniko bara kharifal muniko xari muniko nangga na nga top sa ñaari wayjur te na nga leen ñeewante ñom ñaar fo toll na nga gaawant seen digal lepp luñ la digal rek na nga gaaw def ko te mbolem luñ la téré na nga ko bayyi soko defé dé da nga kawé lol wa burra walidayka fuq bihima wa kun mubadiran ila amrihima وانتهي عن جملة ما قد نهياك عنه لربك فيزداد عليك نكو بارك رفال بوكني تي تيغن نيت ني ñoo yam ñom ñepp yam amul wenn xéet wu gën moromam ndax seen bay moy adama seen ndey di hawa su fekke nit ki da dik nag ngir ndamu ci askan sama askane nangam ak nangam na la woor ni mi ngi ndamu ci ban ak ndox te lolu amul njariñ الناس من جهة التمثيل أكفاء أبوهم آدم والأم حواء فإن أتيت بفخر من ذوي حسب يفاخرون به فتين والماء كون كوبوك تي أسكن سيني بارا خريفال نام ورولا ما جن دي ورولا تي مريد صادق كيم كو سيدل نيكو مريد والمريد الصادق اللبيب يو مريد بو دغوبي بيغا خامني مريد بو دغوبي بيغا خامني boroomum xel nga ku yewu nga sëñ Tuubaa ne ko sifaatu saadiqil muridi bi ixtisaar arbaatu nadamtu xaw fa ixtiraar melooy murid saadiq moom tënk naa ko ci ñeenti bayit ngir bañ murid booru ci ba ci njëkk mooy asidduqu fi mahabbati cheikh abad dëggu ci bëgg gi nga bëgg sa sëriñ su moom tisaale am ruuxay tooraat sëñ baari xarifaan ku bëggoon sëriñ Tuubaa la ku toppoon ndigalam la mu ne ko bokk na ca meloy murid saadiq wa tarkul i'tiraadi mutlaqa bàyyi diingat sab sëriñ ak lum néew néew waahiran ak baatin bu ko def walaw bi baatinin ali fi ma qad rawaw ne ko bokk na ci teggini murid saadiq wa maa huwa salbul ixtiyaar li xusni danni bila inkaarin bañ a ngir rafet njort ci serigne te bul di nga dara dara dara lepulum lum la digal rek defal lola. neena ko lolu bokku ni ci teggin yi mala tagge motax kutendikin ku tedd ki ne takunu muridan thumma fika irada fa in lam turid shay'an fa anta murid neena ko murid da ngay nek murid ak teel bi ci yow bo dara rek murid nga neena ko bo dara rek murid nga boo bëggul dara murid du bëgg dara dafa ne wax ne al muridu man laa yamliku shay'an murit mooy ki moomut dara wala yamlikhu shay'an shay'un al muridu man laa yamliku shay'an wala yamlikhu shay'un murid mooy ki moomut dara dara moomu ko dara moomu moomut dara dara moomu ko lu sëriñam soxla ci moom mu sëriñ baa moom loolu amut soxla ci dara soxla sum nek bu ko sëñ bi soxla mu dag ko loloy murid mu bok ko na ci li tax ma la nga melo yi yépp da matal baara xarifal sëriñ bi itam mu bok ci ñi nga xam dañoo taxaw taxaway bu rafet ndax njabotuk sëriñ bi fi njabootu sëriñ bi bi fi sëñ Tuubaa di nekk la la la fas ak ñoom kóllëre bokk na ci sëriñ Mahamadul Fadal sëriñ Mahamadul Basir ak soxna Faati Ja ñoom ñëpp dañu daan ñëw fi moom lu baree baree bare di fasanteeg moom kóllëre ku amoon solo la ku amoon maanaa la moo tax sëriñ Xaadim Gay nee na di doom ci sëriñ Cheikh Awsat Gay nee na sama wayjur sëriñ Cheikh Awsat Gaye nettali na ma ne sëriñ Abdou Qadir am na bés mu dem fa di ko siyaar moom sëriñ Cheikh Awsat Gaye mu dem sëriñ Abdou Qadir di ko siyaar mu ne ko busubaa subaa na nga fi ñëw bu subaa na nga fi xëy si nee na mu ànd ak sëriñ Ibrahima Diagne nee na bu ma àggee ba ñu nuyoo mu ne ma li ma lay doyee kat mooy feddali sama kóllëre yow ci Serigne Bara ndaxte biir bi fi Serigne Mouhamadul Moustapha di nekk moom la teg ci kanamam moom Serigne Bara Khary Fall biir bi Serigne Mouhamadul Moustapha di nekk moom la teg ci kanamam jox ko léppam lu mu nekk mu ànd ci ak moom ba mu ko noppee gis. mo and ak Serigne euh, Serigne Mouhamadul Fadal mo and ak Serigne Mouhamadul Fadal ci noonu ci toogaayu Cheikh Mouhamadul Fadal la fi bayiko muy 1946 digam ak mag ñi ando digam ak mag ñi nga xamne ño andon ak Serigne Touba diggante bu rafet bu bo xamne fu mu tollu eh, eh, da ko da ko da daa jokk di ko yeesal ba mu demee ba mënatul ba ba mënatul a dem mu koy jokk ci ay ndaw ak ay leetar ku dëddu àdduna la woon sëñ Bara Xari Fall ku ëmbal mbindeef yépp yërmande la woon sàmm lool daana wax ay taalibeem naan leen maa ngi sant yàlla mi leen nëbb samay ayib maa ngi sant yàlla mi leen nëbbu samay ayib maa ngi sant yàlla mi leen nëbbu samay ayib ba gisoo leen ko ci bu ngeen gisoon samay ayib moo tax woon noonu mu meloon ci xaqiqa noonu la mel ci sharia shariam ak xaqiqam dañoo dañoo tolloo woon benn ëpp ci woon moromam moo tax dafa am góor goo xam ne dafa am liggéey bu mu santoon taalibe yi am ca ñoo xam ne ci taalibe yi dañoo wax ne liggéeyal sëriñ bi doy nanu lu ñu ko booleeg di woor liggéeyal sëriñ bi doy nanu du ñu ko booleeg di woor ba mu ko yégee moom sëñ Bara Xari dafa ñëw ci ñoom ne leen ana ñu woor ñu ne ñu ngi mu ne leen féete leen ma nii ana ñu wóorut mu ne ñu ngi nii mu ne féete leen ma nii daldi wax ne yéen ñi jëfe ndigalul sama borom déggal yéen ñi jëfe ndigalul sama borom te man koo booleeg liggéey bi yeggale leen ko yeggale leen liggéey bi ñi ko jëfewul ñi jëfewul ndigalul sama boroom nag bàyyi leen bàyyi leen ma fi sama liggéey سيني بارا خريفة نون لنكيون ماك نيب تلو لين سرين تبا تكون موي دفي حقيقة بولي حقيقة اك شريعة اك سنة سيون انتبه عليه الصلاة والسلام même julli noonu la ko mag ñi fonke woon mag ñi waroon sëriñ Touba noonu la ñu fonke woon ponke lislaam yi bokk na ci julli ndax xisab Serigne Habibu Mbàkke ak taalibeem yooyu benn bis taalibeem yi dañ ko doon sàkkatal bi muy dugg ci jàkka ji bi ñu nodd mu mel ne def leen a xelmati ñu continuer di liggéey ba tey bi mu génne jàkk ji mu ne leen waaw yéen dafa mel ne dama xelmati bi may dugg ci ji maa ngi leen romb ngeen di liggéey ñu ne ko waaw ñu ñu nakk-nakkal mu ne wax leen bu ngeen waxut dañuy turi sàkket yépp ñu ne ko ah bi ñu nodd daal jàpp nañu fii lañ toll mu ne dindi leen lépp ba mu set bañ dindee mu ne hakata nii la ko sama sëriñ bu baax ba daan diglee muy sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ci loolu la leen sëriñ Tuubaa yar moo tax boo demee ci kitaabul Majmuun Nuurayni bi sëriñ Tuubaa bindal boppam ci loxoom maa ngi fay nettali xadiis yonent bi alayhi salaam bi yonent bi naan إذا جعل تارك الصلاة يده في طعام يخطر بين أظهاره سم يجول في القصعة فكل من أكل منه احترق قلبه ومن احترق قلبه قصى ومن قصى قلبه فالنار مسكنه بل تيتك لا لا القرآن فويل للقاسية قلوبهم سنتبانينا كباي جلي bu raxasoo ba set jël loxoom teg ko ci ndam ci ñam wi di lekk dafa ronwe yi dafa am tooke ju ci rogalaat di dugg ci ndab li di dugg ci ñam wi ci super bi képp ku bokk ak kookee di lekk nag tooke jooju day royat ci ndab li soo ko tibbaalee téegoo ko boo ko lekkaalee day wowal sab xol te képp ku sab xol wow sawara mooy sa kër daal ci teg laay waxi sunu borom jum ne fa waylu lil qaasiyati quluubum tuskare ñeel la ñi nga xam ne seeni xol dafa wow suñ tubaay tegaat ca ne ida aqbala taariku salaat ala taamin irtaadda taamu fa yaqulu allahuma anzi albaraka nee na ki bàyyi julli bu fekkee daa jub aw ñam bu fekkee day jub aw ñam ca ndab ñam wi day baj baj di yëngutu di lux naan sun borom noccil barke ci man noccil barke ci man xam nga ñam dafa am barke ñam wi ci bop moy wax sun borom ne ko nga nocc barke ci man ba way ji di ma jëfëndiko bu mu am barke anzi minni al baraka na nga nocc barke ci man serigne touba waxat ci majmu' bané man tabassama fi wajhi tariki salat fa ka annama hadama arkaanal kaabati nee képp ku muuñ ree ci kanamu ku bàyyi julli mel nga ne ku màbbu kaaba gi allahu akbar nee na ku muuñ ree rek ci kanamu ku bàyyi julli ku dul julli nga ree ci kanamam di ko wan ne ko bégg naa ci ak sa wax ji naa nga mën a mel nga ne ku màbbu kaaba gi allahu akbar suñ jubaa teg ci ne man naka binta taariki salaat qataa ma baynahu bayna allah képp ku takk doomi ku dul julli këll rek nga seqoon ak yàlla dagg na ca ba buum gi la jokkale won ak sunu borom dagg na képp ku takk doomi ku dul julli doomi koo xam ne du julli këll rek nga seqoon ak yàlla dagg allahu akbar nga gis ne serigne touba noonu la doon doxe ak mag ñi noonu la yare woon mag bokk na ci lim daan wax mas naa wax soxna sëñ kala sëy ne ko kala sëy mu ne ko mbàkke mu ne ko nit juróom la nit yàpp la ak yax ak jëf ak ruux ne ko nit nit ki bu faatoo ñu ndawal gi jébbal sax yi ak alal alal moy juromel bi mais ku nit ki bu faato ñu jël ndawal gi jébal sax yi jël yahi jébal ko suuf si jël ruh gi yobbu ko alabul malakut jël alal ji seddelé ko njabot gi ne ko bu len ko ci sante kiso kenn kuy ku ñuy mirage ak njabotam di ko diko di ci alal jam fa bayyi jël alal ji jox ko njabot gi jëf ja képp ca am njariñ daal ci teg ne ko kala mu ne ko mag mu ne ko yàlla yàlla yàllante moom muy jëf ju baax mhm. jëf ja képp ko ca jariñ kon Sëriñ Tuubaa noonu la nekkee woon ak mag ñi mag ñi ñu sàmm lañu woon gisoon nañ Sëriñ Tuubaa ku mel ne Sëriñ Maxtaar Mbay Kayre gisoon na sëñ nekk ak moom bokk na ci ko sëñ Tuubaa dénk ko sëñ mas na ko jox bar ci bar ci loxoy suuf ne ko maxtaar kayre maxtaar eh, ne ko maxtaar mbay kayre mu ne ko mbàkke mu ne ko lu toll nii lu toll ne fepp suuf yi danga ko am ci kër àjjana allahu akbar te teewu ko a fonk jaamu yàlla sëñ maxtaar mbay kayre téeméer rakk ak fanweer la naafila mas naa dikk njaarim sëñ Tuubaa jiitaloo ko julli korite nekk ci sàppe si xanaa loolu dara gënu ko rëy mas naa dikk njaarim sëñ Tuubaa ne ku ko gis texe ñu yendu koo rang ba ngoon di ko siyaare bi waxtu naa fi lim jotee dafa jël kenn ci mag ñi wuutal ko palaasam dem naa fi la ji sëñ juuf la jël wuutal ko palaasam dem naa fi la nga xam ne li leen sëñ Tuubaa daan mësuñu ko caaxaane boole koog di liggéey kayre te lu ñor ca tool ba mu yóbbu ko ndaam ca daara ja sëñ Maxtaar Mbay Kayre mas nay génn ci bunt dajeeg seen soxna mu riisoog moom mbagg mi mu dem jël gilinuk sawara daal di koy ñaas maanaam maanaam ñaas ko marke ko fi fi ndaw si riisoog moom ne day xisaab boppam laata muy dem ci sunu borom allahu akbar mag ñi nii la ñu sàmmoon te noonu mag ñi góor ñi meloon ni la jigéen ñi meloon ndax soxna astu jaw ca muritani yaay siñ diouf day ñu ne benn bis nor doon no rot, ci doon no rot ci ten bi benn nar dik japp ci loxom ne ko andul leen fi ko nar bi jàppoon bi mu demee këram nuk sawara la jël marqué ko takkal bopum ab la marqué ko ñaas ko bam bam bam mu marqué ñu wax ko mu ne day day day xisaab bopum ngir bala dem ci borom subhanahu wa taala mu di ko hisab allahu akbar kon jamono yi mag ñi wuute na ak sunuy jamono ñun moom sunuy xadara yëpp daanaka ci jigéen ñi lañ koy jeexale xaqtaay tàppante dóorante wax waxtaan ak jabare jàmboor wax ju zahire kon nun kenn xamul fu ñu jëm bu nu yàlla dimbaliwut ak sëñ Tuubaa kenn xamul fu ñu jëm soxna aw buso sëñ Tuubaa mas na ko wax ne ko aw buso mu ne ko mbàkke mu ne ko jaamu jaamu leen yàlla aw busa mu ne ko mbàkke mu ne ko jaamul yàlla aw busa mu ne ko mbàkke mu ne ko bu kenn tee jaamu yàlla ajjana benn buur la am muy sunu borom te ku ko neexul du ca dugg benn képp moom ajjana kenn moom ko te coobareem lay doxe sëriñ Mouhamadou Lamine Gueye Firdawsi kenn ci mag ñi di mbokkum mag mii ñu doon nettali muy sëñ Baara Xarifal sëñ Mouhamad Lamine Gueye Firdawsi daana wax ne sant na yalla ngir ñaar ngir wote gi serigne touba wote ma wuy ci sant na yalla ngir lolu sant na yalla ngir wote gi mu sunna ndax bu wote won lu ak sunna du ma wuy si te wóor do bo wuy serigne touba ko wuy ci wut torox àdduna ak àllaaxira mom Cheikh sëñ moom euh, sëñ Mouhamad Lamine dañu ne masna jëm njaareem di siyaari sëñ pour sëñ ni mu yare woon mag ñi ci maandu ñu ne war ab mbaam bi mu demee ba ngaabu mu toog di jàpp fa mu doon jàppe dërëmu ngurdu ba mu waroon a siyaare ji wadd fa mu jóg dem ba jub njaareem xool gisut dërëm ba mu dëpp di di ko jëli ji fa mu doon jàppe mu demee fekk fa ñaari dërëm mu wóor ni ko benn dërëm la amee woon moom te xamut bu mu ci moom muy sikki sàkk di sikki sàkk mu yàgg ba fa dërëm yi dem ci sëñ Tuubaa mu mu demee njaareem nett ku tedd ki mu ne ko seytaane googu fii rek la la desee loon allahu akbar ñu sàmm la ñu woon sëñ Abdu Xudus Mbàkke doon na nettali nee na sëñ Tuubaa benn bis dafa toog ba mu yàgg mu ne jaamu ji leen yàlla jaamulu ma leen yàlla jaamu ji leen yàlla jaamulu ma leen yàlla jaamu ji leen jaamulu ma leen yàlla sama bopp laay jaamul yàlla ba xam sama jaamu yàlla gu bari gi ngeen di naw sax doyuma allahu akbar mësta wax lu neex mësta wax lu neex moom sëñ Tuubaa mësta wax mag lu neex wax ju wax wax ju neex ji léegi la xew moo tax soxna Aminta Amar waxoon na ko nee na woon dafa mel ne yéen sëñ mi ngeen jamonoonteel ak ñun miñ jamonoonteel du benn sëñ Tuubaa mii ñuy nett li ngeen di tëb di mbëkki baas ak di mbëkki kii ah dafa mel dafa wuuteeg miñ jamonoonteel nun miñ jamonoonteel soo masaana yekkub reer wala añ ba pare dem seeti ko soo paree ca moom dootoo ñemee jël tibb tibb di ko dugal ci sa gémmiñ xalaat bàmmeel ak ëllëg rek ngay ngay ngay def ngir wax ju tàng jang fee jële doo fa jële mukk wax ju neex Sëñ Tuubaa noonu la nekkee woon ak mag ñi moo tax daana wax ne wàcc leen lal yi te sañ ci der yi te wàññi nelaw yi ba dem ci bàmmeel bu ngeen duggee ci bàmmeel lu ngeen bëgg nelaw da ngeen ko nelaw allahu akbar lu ngeen bëgg nelaw da ngeen ko nelaw daana wax ne man damay jaboot ju barim soow daana wax ne nàmp si leen ndax damay jabar damay jaboot ju barim soow te duma muural muural nag mooy ñàkkum soow daal ne sama batt mooy xasida yi sama batt mooy xasida yi mooy sama ween mooy xasida yi am na mag moo xam ne dañ ne mas naa ñëw ci di di di kalaame ab taalibe ci ci ngir ngir soxnaam sum gis mu taxaw ak moom bi kooku dikkee sëñ bi laaj ko ne ko diw nee na daa laa gis nga taxaw ak soxnaam ci mbedd bi loo jubli ci loolu mu ne ko Mbàkke mankat dama ko doon laaj ana sa nijaay ana sëñ bi mu ne ma dem na kër sëñ ba loolu rek laa doon wax ak moom la ma doon wax mu ayewut sëñ bi xanaa xamul nit dem na ci sawara lu gën a tuuti dem na ci sawara dem na sawara lu gën a tuuti loolu lu gën a tuuti loolu nit dem na ci sawara ñii la daan yare mag ñi moo tax sëriñ Darou Assane Ndiaye nee na diirub li ma ànd ak Serigne Touba lépp mësuma digal lu dul jaamu yàlla musuma digal musuma soññ ci lu dul jaamu yàlla. moo tax Serigne Touba daana wax ne li lay wax ne la kursub mag ñi mag ñi nekk gi nekkoon ak Serigne Touba nga xam ne musu leen wax lu neex. ci jaamu yàlla lañ dëkkoon sax ca dafa wuuteeg sunu jamono nun mooy Sëñ Tuubaa daana wax ne woote bi yàlla boo gis ñett la njëlbéen nga yàlla yi kese lay doon digg ba ak nguur képp lay doon mujj ga ak kéefar lay doon loolu boo ko seetantalee sunu jamono ji danga nga xam ne vitesse yu mag ñi doon daw ak wi daw nun lu wuute la dafa mel ni mag ñi ñoo nekkoon ci yoonu yàlla yàlla yi kese ju dara nun ñu ne ci nguur fi mu toll suñu doom nag dafa mel na noonu raw wala iyaazu billah bu muy tudd ci kéefar la ñu ne. Cheikh Cheikh Maodo Moussa dafa am masa am mbokkam yu jóge yu jóge Ndakaaru ñëw ci moom. indaali seen addiye daal ne ko mbàkke nun kat danoo bëgg àjjana te ragal sawara mu ne leen. mu boole leen ak ku sant ñaan ne leen ne leen yóbbu ci Serigne Touba Njaareem bi ñu demee ci ku tedd ki nuyoo ba pare toog waxaat lañu waxoon ne ko Mbàkke nun kat danoo ah, ah, danoo bëgg àjjana te ragal sawara mooy ni taalib yi def rek joxe addi ba pare bëgg cee sa bëgg bëgg sas sëñ bi aw sas dañ ko defee Sëñ Tuubaa dafa jël xaalis ba falang ko ba mu ko falangee ca dënnub ko ko joxewoon la dal mu ne ko maa ngi lay waatal maa ngi lay yëgal maa ngi lay waatal ne àjjana jooju nga tudd ku leen mënta te tax a jaamu yàlla mënu leen dugal àjjana sawara soosu nga tudd ku leen mënta tee bàyyi mooy yàlla mënu leen mënu leen a dugal mënu leen a génnee ci eh, mënu leen a génne mënu leen tee dugg sawara daane ko ba ci Muudu Mustafaa moom la moom leen yónni xam ne Sëñ Tuubaa foofu la nekkoon mag ñi foofu lañ nekkoon noonu la daan yare mag ñi mësta wax lu neex mësu koo dige Musuku waxe kon lolu ab soññe la ci dunduk mag ñi nga mag ñi ni ñu won ak Serigne Touba mag ñi la ñu won ak Serigne Touba mag ñi buñ ko fekk ci mu tok ñu dik ngir mu ngir mu waxtaan leg leg dañuy tok rek mu tibb suuf di xep nan len irjo ila rabbikum luñ ci seen borom jaamu jalla yàlla da di rek lol day serigne bu ko defon sey taalibe yakarna fa ngay takali ko ñom fa ngay takali ko ñom kon mu melne yoon wi folklore bi dafa bari lol lol lol lol ba da ngay dem ba japp ne sax mana da ngay dem ba tit ñi sét lu dëgg da nga dem ba tit fim tollu ci yoon wi ni mi doxé kon loolu mooy li nga xam ne moom lañ doon jéem a leeral ci waxtaanu jaar-jaar ñi mag ñi nga xam ne ñoo àndoon ak Serigne Touba Cheikhoul Khadim ñu tànnoon ci kenn muy sëñ Bara Khary di ñaan sunu borom subhaanahu wa mu taas ñu ci barkeem te yokk ay leeram te may ñu ci mboyee sëriñ Serigne Touba mayoon ndax bokk na ci ñi Serigne Touba ne woon baara mu ne ko mbàkke mu ne ko am nga ay mboy ajjana mayoon na ko mboy yu bare bare bare yàlla nu ci sunu borom taas ci barkeem te boole ñoog ñoom muy saxaaba yu tedd yooyu nga xam ne ñoo àndoon ak Serigne Touba Cheikhul Khadim di wax ne lu jub ci kàddu yi ñu ngi koy sant yàlla suñu borom subhaanahu wa taala lu ci dëng ñu ngi koy jéggalu te xam ne dara itteelunu lu dul jéem a bëgg leeral dundug mag ñi ngir ndaw ñi man cee jariñu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu in uridu illa al islaah mastataat mastataat mastataat mastataat mastataat